ci barkeem xaada lahu llahu maxtaara lahu téere bi nag fii la muy ahudu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bi ma sante yàlla tabaraka wa taala julli ci yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa wa sallama wa baraka lii moo di jaar jaari sëriñ tuuba xaada lahu llahu maxtaara lahu lépp jóge ci irwa u nadim bopp sëriñ muhammadul amin joob dagana radiallahu taala anhum bu fekkee dana am lu ci nekkul dana néew lool yal na ko yàlla nangu ci barke borom tuuba xaada lahu allahu maxtaara lahu sëriñ bi ahmadu bamba la tudd way juróom wu góor sëriñ maam mor anta la tudd radiallahu taala anhu way juram wu jigéen jaaratullahi maryamu busu la tuddu radiallahu taala anha askanam tukkuroor la mbàkke ba walla ganee adduna atum junni ak ñaari téeméer ak juróom ñaar fukk ci gàddaay gi ci weeru baraxlu fukki fan ak juróom juróom ñaar fukki at ak ñaar moodi ak dundam ci adduna ci saahir ci atum wom sasin ci ñaar fukki fann ci weeru tam xarit dibisub araba lañu noppi ci am dencam altene jako jiitu la faddu ci aduna nijaayam sëriñ bu soobe radiallahu taala anu moo ko dalal alquran ci ndigalul way juram ginaaw ba la ko jox nijaayi soxna jaara ju ñuy wax tafsir makke numbe mbe ba mu faatoo la dellu si ci sëriñ maam moor ante sëri radiallahu taala anu yàggale alxuraanam ci moom tàmbuli di jàng ci baayam bu ndaw samba tukkuloor ka ca seelum ginnaaw ba mu ñëw pataar di jàng ba tey ci way juram daana ni dem itam njaañ di fa jàng di ñëwaat pataar ginnaaw ba la ñëw mbàkke kajoor ànd ak way juram ba way juram làqoo tuuti la tàmbuli tarbiya teg ca tuuti ñëwaan mbakke bawal teewul mu daal teewul mu daan wër niti yàlla yi di leen siyaare rawanti naa naar ya nekk gànnaar ginnaaw lii la sanci daaru salaam ngir lor yu ñu ko daan lor ginnaaw mu sanc tuuba teewul muy baagante ci biir diggante daaru rahman ak daaru xudóos minan ginnaaw lii la dellu jolof sañtaan bàcce bëri ginnaaw ba mu fa nekkee ab diggante lañu ko woonar ngir ay tuumaal yu ñu ko tuumaal ci atum jey sasin mu génn bisub gaaw ci weeru safar yegg jeewal fala julee tàkkusaan fanaan fa itam xëy wuti kokki fala yendu jóge fa ginnaaw gee ci fas la war yegg Luga njëkk fajar tuuti fala yendu bam jullee takkusaan la yëg ca saxaar ga wuti Ndar yegg na Ndar njëkk timis tuuti fa la nekk fukki fan ya desoon ca weeru safar ak weeru gàmmu wépp ba mu des alxamis ja ca mujj boobee la fa jóge wuti Dakar yegg dakaar njëkk timis tuuti fala fanaan xay yendu ca biir gaar ga bisub ajjuma fanaan fa door fa jóge bisub gaawu ñaari fan ci rakki gàmmu jaar na Konaakiri fa jaar na garam basa waaye wàccu fa jaar na itam dawme waaye wàccu fa bisub àllarba la wàcci Gabon am nafa dun bu mu am juróomi at maa yomba itam ci biir Gabon la nekkoon na fa am na itam yeneen dun yoo xam ni am na fa ñetti at yu des tuuti lépp ci ab liggéey la nekkoon bisub gaawu la dellu ci Dakar juróom benn fan ci baraxlu atum kasasin ci gàddaay gi daa ñëwaat ndar am fa fukki fan ak juróom juga fa bis bi njëkk ci ramadan di talaata ñëw Luga kër mbokkam Sëriñ Seex Cora jóge fa guddi gaawu jaar kër Serigne Jolo Cissé ñëw kër Serigne Siré Lo radiallahu taala anu yoor yoorub di nekk fa la ca Ramadan ba jullee kori bisub alxamis teg na ca ajuma gaaw ba mu sëlmalee tàkkusaan la fa jóge rombu kër góor mag jaw boole fa timis ak gee fanaani kër makka kër makka samba baabu njëloo fa bisub dibéer ñëw kër baayam bu ndaw Serigne Ibrahima Mbacke Kajoor radiallahu taala anhu bisub altene ba musulmane tàkkusaan la fa jóge jaar kër Masamba Xari Joob jaar kër Maxtaar fanaan fa yennu fa ba ca bisub talaata mu ñëw kër Muxtaar Mariama Silla ca ñaxal am fa ay fan ñëw kër Muxtaar Samba Joob ca kokki guy yennu fa ba ngoon mu jóge fa wut si Daaru Salaam am fa fukki fan ñëw daarul manaan ba mu fa nekkee ab diir lañu ko woowaat ndar mu juge fa bisub gaawu ginnaaw ba mu sëlmalee tisbaar fanaan ngaabu ñëw njëreem ci suba jaar tuubaatul ñëw tiwaawoon dugg saxaar wuti luga juge fa ñëw dagana am nafa fa juróomi fan doora ñëw gànnaar sor fa la woore ramadaan ñëwtuntu muxsin ak xumaat ak jaraariya ci weeru gàmmu atum xak sasin la fa jóge jaar yoonu gànjaar julli ci seen jumaaja ñaari rakka jóge fa ñëw dagana am fa ay fan ñu ndar ca maam Cheikh Ibra ay fan ñëw Luga ca alhaaji Masamba Soxna boobee la yable ci yéen ngir ñu sanc fa bala moo yegg si ba mu fa jugee la ñëw gànjaar fanaan ca jàkka ja ca bërëbub seen sëriñ ba ba mu fa jugee la ñëw ca kër sëriñ Daaru Asan Njaay radiyallahu taanu yendu fa fanaan fa yendu waat ñëw kokki ca sëriñ Muhammadu maam maami sëriñ Basiru radiyallahu taala anhuma juge fa ñëw ñëw duriga ca sëriñ madun sàmma maami sëriñ mouhamadou mourtala radiallahu taala anhuma jóge fa ñëw kër basin ca mouhamad amina xumma joob jóge fa ñëw ci yéen ci tàmbuluk weeru rakki gàmm ak sasin tudde ko daaru rahman ca jumaada saniyati sax ci sax sasin ci ca jumaada saniyati ci sax sasin mu sancaat ca penku ba tudde ko daarul xuddoos diggante ñaari kër yi man na kilometre wala mu yees ko ca tam xarit la fa juge ñaar fukki fan ak ñett bisub gaawu wut ci njaareem génn na ba sori lool door a julli suba ca guddik altene mu fanaan daarul alim al xabir ca sëriñ abdourahman loora delaahu taala anu ba mu xëyee ñëw njaareem fa la fanaan guddik talaata ñaar fukki fan ak juróom benn ci aw tam xarit ca wetu kilifa dëkk ba fala la ci weeru gàmmu alsasin la fa jóge ñëw kër gu mag tudde ko al buqahatul mubaraka am na fa lu mat fukki at ak juróom yoo xam ni la mu ko génn dem faneen bariwut mas na fa jóge wuy ji Dakar jóge na fa itam ñëw xuru Mbàkke ci atum wam sasin la làqu Sëriñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana ak Mouhamadou nu Abdirahman Atandaxiyu radiallahu taala anhu ñoo ko waajal sëriñ Basiru ànd ak lu man ñeent ci ab wata andi ko Tuuba sëriñ Mbàkke Buso radiallahu taala anhu moo taxawu julli ga alhamdulillahi allasi hadena li haasa wa ma kunna linahtadiya lawla an hadena allah subhana rabbika rabbil izzati ama yasifun alamin foofu la téere bim tudde jaar jaari Serigne Touba yam mu doon loo xam ni mooy ba tey mbind mi kayit yi néew na waaye jaar jaar yëpp tënk na ko ci tënkin wu leer nañ yal nañ ko Serigne Touba fayal moom Serigne Alhaji Mbakke yal na Serigne Touba nangu léppam ay yëngatoom ak dalam yokku fanam yokku wéram ci darajay liggéey bu mag bii muy def subhaana rabbika rabbil xissati ama yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين